soo bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. soo ko fay duudu gëj naa kaa gisee mu si lu mu nekk day def ma bàyyi dëgg nag. <laughs> gis yàlla moo gën a yomb moom gis duudu. duudu daal maire lañ indil benn xale bu jigéen bu rafet boo xam ne rafet gi yàlla wàcce ci kooku de. ah man na damaa xamul ko rafet man li may gën a bari boo loolu xaar moo ko présenté la ko. c'est bon c'est Sali. Sali. naam. kaay. ngone da ngay jang ñub té lu mu la mayul du la ko xagn dégg nga na ci li nga def ni bu ko ba mukk nak li nak maa la ko may ci xol bu sedd guy aha kay xam nga lan moo tax parce que mënoon nga koo lekk te duma ci xam dara wa mais xale bi yow ku la jangal togg ah wala jiddu wal yo so toge ma fi ñu ne mom lu mën sëpp kañ nak waxatuñ ko tay mom xolal da nga wacc kër gi ba zéro suma bay yaay mais lu man di am yaay nañu waxtaan rek mais bo defé ni man fan la jëma ah? yow waroo bënn say bëdd jo yaay waruñu ñu mëna gis say ronkoñ yaay say ronkoñ dafa war fer ba ilaa diine kon lu man di am gérer man dina gis suma ma ne jaay dina waxtaan ak mom mais yow tamit def ni yaay di jax d'accord madame Kaba moom xam nga rek ku mu téye këram rek daf koy jàppee kom doomu ah, xëy na loolu moo tax déggoo ko ah ko loolu baax na dama xam ne rek man ba ma ko booleeg yow ba pare ba nga yóbbu ko ko foofu ba mu commencé liggéey waroon na maa di nemmeeku tata loolu moom na sa xel dal dinaa si kontaan bu baax pour reer bi bul wax dara dinaa la ko defaral ba mu gën a neex Gouma TV, Sango Sangoguma TV, Sangoguma TV, Sangoguma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble.